jërëjëf mbokku téléspectateur yi ñu am bégte lool nag xol yi sedd ci ñu jokkoo ak yéen ci wàllu cosaani réew mi tey ji ñuy ñëw ci lu bari ci loo xamante ni bokk na ci li waral nit ñi di bëgg sport bi nga xam ne moo di lutte traditionnelle dinañ ci ñëw waaye xam ngeen ni làmb ji am na tiis goo xam ne daf cee dal mu di soxna bu Abdou Aziz Ndiaye di maam Binta Jéen di xale xale bu ndaw boo xamante ni maam Binta Dem di xale boo xamante ne ni macha allah xale bu baax xale bu yaru xale bu bëggoon sëyam amoon cër lool ci kër ga mu doon sëy génn àdduna mu doon nag tiis woo xamante ni tiis bu mittee mittee mittee mitti waaye bu nit ñu ñëwee dinañu dalal xel kii am mitit xelam dina dal te yaakaar naa ni kii gaañu ñii wuy si Abdou Aziz Ndiaye wone na ni ki gaañu ñi mu fi bàyyi ñu baax la ñu waaye moom mi demit nit ku baax la ndaxte ku gis rob ba ak ñu ñëw ñëpp nga xam ni kii vraiment jigéen ju baax la woon ñu koy jaale Abdou Aziz di ko jaale njabootu baay Alé Ndiaye yëpp di ko jaale Masata Magam ak ñoom Baye di ko jaale njaboot yi di ko jaale Kujja Jóob di yaay ci Abdou Aziz mbokk yi ñu jaale ko kon njaboot gi jaale ko it ñi bokk sport bi yëpp la ñuy wax ndaxte ministre de sports bu fa teewee képp ko xam bëgg nga sport yaa nga fa ñi bokk làmb yëpp ñoom tamit macha allah ñëpp ñëw nañu ñi bëree ñi seetaan ak ñi nga xamante ne nii ñooy organiser kon ñi ngi ñaanal maam Binta Jéen yàlla na ko suñu borom xare àjjana mu di tiis bu metti ah te yaakaar naa ni ki dem li teew wane na ko alaaji Papa Dieng dëgg la bi kay dem ci bés ba ak tamit nit ñi fa nekk ak tamit euh, kër gën a mu mel nga xam ne xale bu baax la ndax nit ñi ku ñu seddeel rek sa bés rek c'est parce que liggéey nga ci lu mag Aziz nag lu mel noonu bu ko dalee euh, kenn du ko yéene ndax xale bu baax la xale boo am njariñ xale bu am sutura am teraanga di xale bu baax mais li nga wax rek bu ministre des sports ñëw sportif yëpp nga fa tudd moom rek fa ñëw. ñu bëree nga fa woon ku ñëwul yónnee nga. Mhm. kilifa diine yaa nga fa woon. Mhm. ak tamit ay mbokkam ay xaritam ay am di jàmmam. ak ñi nga xam ne ñëpp ñoom la saxal àddina parce que du ci sport rek Aziz dafa yëngatu ci lu bari. Mhm. muy xale boo xam ne xale bu baax la xale bu bari kersa. kon bon li ko dal euh, métti na ñëpp wante yàlla moom bu bëggee kenn du du xëccoog moom. mooy li nga def yàlla jàpp ci li nga xam ni ci lay yëngatu defal ko jàmm defal ko salaam defal ko ay waajuram tamit ndax tudd nga waajur yi te waajur yi tamit liggéey nañ ci carrière ak lu rëy rëy rëy rëy waaw ndax yaayam ji nga tudd léegi ak papaam mhm. saa ñu ko tuddee tudd ñooñu waaw waaye moom tamit def naa ni fay na leen bor ba fay na leen bor ba di xale bu baax macha allah yaayam ñoo bokk benn mbedd bu nu juddoo ndeysaan ci Grand Dakar ci Grand mu doon sama jigéen di sama xarit bi Aziz duggee ci làmb ji daf ko ne boo duggee ci làmb ji da waroo ci wéet ay dëgg la te sama càmm ña ngi ci biir làmb ji dëgg la te ba Aziz duggee ba léegi it mhm. vraiment du def wala mu wax dara loo xamante ni woowuma ci ñu bokk ko mhm. ñëpp xamit sa diggante yow Moustapha mhm. ak Aziz mu di diggante boo xam diggante bu yàgg la faral na la bi nga nekk mbër ànd na ak yow te it lépp loo dugg mu dugg ci tey bu amee tiisit ni ngeen war a def yëpp def ngeen ko ndax teew ngeen teewlu ngeen jërëjëf ah soxna si daal yàlla na ko yàlla xaaree àjjana. Mm-hmm. ndax ay témoignages jëkkëram la doy na sëkk ci mm-hmm. xel dal ci moom. Mm-hmm. dëkk bu ñu koy yóbbu it Tiwaawan uful ko Cheikh Sidage Malick. uful ko sëñ Babacar. loolu rek doy na aussi xel mu dal. man njaal bi dama ko commencé ci alaaji aale bàyyi aale. ndax Aziz yàggul. ndax ki nga xamante ne man sama diggante Aziz mu nga tàmbalee ca bàyyam alaaji aale Ndiaye. bi nga xamante ne moo amaan ndam la koy fekk mu doon jaayee. Aziz di uuf samay pooj nii comme tout le temps foto yaa ngi fi ba léegi jéguyu fi nga xam ne kon ñuy ànd mu ànd ak man ba nëgë ni ndeysaan soxna am soosu nag man dama am sax problème pour xàmmee ko yàlla xam na ko et mhm. tout temps maa ko takki woon waaw parce que tout temps ma nga këram ci ay njabootam mais dinañ dog foofu nag daal di jaale suñu grand frère alaaj boobu man Njaay mi xamante ne mhm. goro Aziz Aziz Ndiaye ak ki nga xamante ne moo nekkoon wujj ki dem tey mhm. ñoom nekkoon wujj yoo xamante ne dañoo langoo mhm. muy Miss Ndiaye jabaru Aziz Ndiaye sama doom ah, tamit ah, ah, ah. ndexadi baabu yaayu Miss Ndiaye waaw euh, Abi Dieng yaayu Miss Ndiaye tamit ak mhm. njabootu Momar Ndiaye ñu ñëpp rek jaale ki nga xamante ne moom Abdou Aziz Ndiaye ak njabootu Alaaji njabootu Alaaji Ala Ndiaye yëpp jigéen ji jigéen ju daloon la ñu bëri sax xamuñu ndaxte doo gis doo ko xàmmee sax ci biir nit ñi ku xawoon a nëbbu la waaye loolu la ko yàlla binde woon te ay gorom gërëm nañ ko ay rakki jëkkëram gërëm nañ ko mm. magi jëkkëram gërëm nañ ko mbokki jëkkëram gërëm nañ ko te loolu dina indi xel mu daal Alaaji du Jaañ ñëwaat na tey ci émission bi mm. ñu war a waxtaanaat dinañ duggaat ci MMA waaye xam nga ne dinañ dugg ci làmb deuxième partie ñu ñëwaat ci MMA ndaxte doyalugun ci pareegun ci dinañu ubbi téléphone bi ngeen wax ci du Diagne Aziz gis naa la fa démb ci sarax si bi soxnaam génne àdduna ay bëggaay ma ngi lay nuyu di nuyu El Hadj di nuyu Moustapha Guèye di nuyu tey képp koo xam ne yaa ngi seetaan si émission bi nga xam ne ni mooy L'Oeil du di nuyu Mbaye Fall mi nga xam ne mooy réalisé di nuyu képp koo xam ne yaa ngi liggéey TFM ak ñuy seetaan di nuyu suñu mbokku immigré yi nga xam ñoo nekk bitim réew di seetaan làmb bu dégg bëccëg di nuyu mbokk amateur yi di nuyu njabootu Sénégal gi Alaji Bécaye euh, wax nga dëgg parce que tey bésu Aziz Ndiaye bi sànq rek Alaji Kéba Ndiaye mu ngi naan day ànd ak Khalifa euh, Léona Niassène mm-hmm. pour dem jaale ji Aziz Ndiaye. Mm. parce que euh, dañuy am ay ziar ay gàmmu Aziz dafay yónnee ay nag. Mm-hmm. mooy wane ne Aziz teraanga mu ngi fépp. Mm-hmm. boo fa demee dëj bi mun nañ ne tijaan murit doo xamee kenn. Mm-hmm. ñëpp ngi ñëw di ko jaali si. mooy wane ne nit dangay def lu baax boo defee lu baax bu ëllëgee booy naqar buy bànneex ñëpp dinañ la wuyu si jàppale la si bés bi. tey soxnaam si tey dañuy ñaan yàlla yàlla na ko la lafal cat bu bàmmeel. parce que ku nekk ñaanal nga ko. Mhm. am na ñoo xam ne xamuñu ko. dégg rek lañu am si moom dégg bi nag jëkkër moo ko wax. Mhm. moo ne damaa gërëm sama soxna. Mhm. gërëm naa ko sant naa ko maa ngi koy ñaanal yàlla. te loolu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne jigéen ñi. fexe leen seen jëkkër gërëm leen. gërëm leen bu ëllëgee. bu soobee yàlla doo leen ko rëccu àllaaxira moo tax it ñu ngi koy ñaanal Aziz di ko jaale. di jaale jaww mi nga xam ne amateuru làmb du wër la. jege Aziz Ndiaye muy ak ñoom Tafanaar. suñu jaal yi si képp koo xam ne amateur la dëkk géejuwaay wala foo mun munti dëkk teg nañ ko si jaw Alioune Jaw mu jaaleel ñu ñëpp yal na ko yàlla yërëm di jaalit bàyyi Aale Ndiaye parce que vraiment amateur la woon di dem làmb di seetaan ba ay njabootam yëpp bëgg làmb kon nag moom it ñu ngi koy jaale yal na ko yàlla yërëm si barke Seydina Muhammad yal na ko yàlla xare àjjana moom la ñuy ñaanal maam Bintu yal na ko yàlla xare àjjana ñu jaale ko jaale ko it Balla Gaye ndaxte ñëpp xam na Balla Gaye son dernier combat nee na lépp lu mu lekk jabaru Aziz bi génn àdduna moo ko togg jox ko ko mu lekk te loolu tiit lu am solo la parce que sportif buy dem ci làmb rawatina mu doon mbër ak mbër ni mu ñaawee njort hmm. nga koy toggal muy lekk ba suur ba géex hmm. loolu ki la koy defal wóolu na la mbër mu la ko nangul rek wóolu na la kon Balla ko wóor te Balla il faut mu wóolu jabaru Aziz ndax ni mu ma ak Abdou Aziz la kon géejawaay mbër yëpp écurie yëpp ñëpp lan lañ jaale jaale mair ba Aliou Sall ndaxte ma nga fa woon jaale mm-hmm. Malick Gakou ma nga fa woon Ahmed Aïdara ñooñu ñëpp ñu ngi leen jaale géejawaay yéen ñëpp ñu ngi leen di jaale ci tiis yi nga xam ne moo dal ci kaw ñi nga xam ne ñoo di sportif yi ñoom ñëpp ñu ngi ñaan yàlla maam Bintu yàlla na ko suñu boroom xaree àjjana